Euh, boo leen fàttali ko cheikh bi wàcc na liggéey bi mu wàccee am na ay coow yu fi am ca denc ba ak li ci xew après loolu Sénégal yëpp xam nañ ko waaye daa am lu ci dolleeku ndax boo seetloo boobaak léegi attaque lu topp la kenn déggul coow surtout fii ci jannatul maxwa coow mën naa am fu ne wala mu des nii parce que lu tax fii yàlla daa def ñi sañ ci dëkk bi yëpp ay borom kër yu responsable lañ si njiital sañ baabakar mbay ak ñeneen ñi fi nekk ñi ci ëpp ay borom kër lañu waaye tabaski bi mu jàllee ba léegi daa may histoire yu fi am histoire yu fi am mooy am na plainte boo xam ni bu njëkk bi waa kër Bakka Gueye la ñu demaat tuuti beneen plainte amaat waa kër Bakka Gueye la coow yooyu am mu indi benn situation de pourriture jamono jooju ñun dem nañu ci kilifa yi yëgal nañ leen ko chef de village bi Saliou la yëg na ko defe naa ni mi ngi saytu. yi histoire bi pour mën koo wax kilifa gi waaye yëf yi boo leen seetloo bi tabaski gi jàllee ba léegi amatuñu jàmm ñun te ñun ñooy majorité bi de waaye la majorité na dit l'égalité ñun nekk ñu majorité tax ñuy dal seen kaw ndax doo gis ci coow li benn mag bu responsable ay gone lañu ñu. daaray Lamine Mbaye ñoo doon def daara dend ak fa ñuy defee daara waa kër ñooñu toog ba ci yàgg ko naate ci li ñu li te it gëstu naa ko ndax dem naa foofu seet naa mag ña fa ne maire Camara maire bi Baye Thioune ay mag yoo xam ne am nañ plus de 70 ans seen buntu kër la ñuy féexloo confirmé nañu les dires ni kooku moo ñëw fekk xale yi taxaw di leen saaga ndey ni leen ku dee góor na nga ñëw fii ma nangam dans un premier temps xale yi noppi mais bi mu ko dollee ni leen yéen doo leen ay góor sax am ci ku riposté coow am fa ñu xeex ci biir xeex bi li ci gën a garaaw am na ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey bay baay Lamine euh, euh, Mbaye moomu ma la wax rakkam ju tudd Serigne Saliou Mbaye ñoom ñaar ñoo doon jàppante di xeex rafetul rafetul ñun sunu wax ji ñaxtuwuñu ndax Touba du dëkkum ñaxtu dañoo bëgg rek kaddu ji kilifa yi yëg ko ni ñu ko war a yëgee ñëw saytu ko bu ñu tooñee nañu ni yenn tooñ ñu tuub bu keneen tooñee ñu wax ko ko bu kenn tooñul ñu xàjjale ñu ba ñu mën a dund suñu muritide fii ñu dëkk di Touba tànn ko muy suñu dëkk te boo leen seetloo man de commissaire yi fi jaar yëpp daan nañu wax yéen quartier bi Jannatu Maxwa bi kër Cheikh Béthio su fekkonte ni quartier daa mel ni seen quartier quartier yu neex a jafe eh, yu neex a bu neex bu neex a gérer ngay doon ndax coow mosu fee am dañoo bokk lépp damay jël benn exemple ci séddale ceeb mi Touba gépp dégg ngeen chef de quartier yi ñuy bëgg a taal seen i kër waaye ñun amul xam nga lu tax dañoo bokk lenn. bokk sëriñ bi bokk dëkk xale yooyu am na ci ñu tudd Cheikh Béthio ak sëriñ Saliou ñu ñu jàpp ñoo ñee leen jàppalu Jibi Njaay soxna May Jóob ñoo ñee demoon nañ seeni i lu gën a ñaaw loolu moo tax ñun ñoo ngi ñaan kilifa yi suma ne kilifa yi xam nañ Tuubaa ñi fi kilifa yi war ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu dañuy ñaan dimbal ñaxtuwuñu jooytuwuñu te billaahi duñu xeex duñu xuloo ndax ko ëpp boo xeexee blessure yu ëpp ni dem fi waaye fois victimisation day am boo nekkee une minorité da ngay victimiser te foofu la ñuy jaar li fi xam yëpp am na ci loo xam ne xajul ci rajo kon ñun ñoo ngi ñaan kilifa yi nañu gaaw ñëw dimbali ñu lii ñu saafara ko. Euh, xaw ma lim bi exactement ah ah, ah, ah. juróom-ñett juróom-ñett lañu blessé yi ñaar lañu ci ñi ma xam kenn ki ci bopp la gaañu kenn ki ci loxo. ay ay seex lañu ay seex lañu boole nañ ci sax ñoo xam ni ñoo xam ni ci plainte bi keroog bi xeex bi di am ñoom ñëkk fi ñu foon Dakar lañ jógee. kon mu wel na ni guddi la guddi googu nee naa la man ak Souleymane Mbaye l'ex principal de Kayré Mbaye ñun ay responsable lañu ñoo dem dàq xale yi ni leen coow du fi am ña nga xam ne yilif nañ leen ku nekk maa la yóbbu ba sa kër ñu tëj sa buntu kër ma ni sa yaay bu mu génnati ca suba ga it bi ñu ñëwee gëstu nañ ko ba xam yëf ni mu demee jàppoon nañ ni ñun ñoo ñooñee nga xam ne ñoo séq sëñ Béthio ci démb seeni doom ñoo ko ngénte ñoo ngénte suñuy doom du ñu jël seeni doom di dem di porter plainte ngir loolu